إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله بك جلدي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى borom boobu nga xam ni moo ñu bind ñun ñépp rafetal suñu bind borom boobu nga xam ni ay xéewalam ci ñun mi ngi tegaloo bés bu nekk waxtu wu nekk minute bu nekk borom boobu nga xam ni kenn yeyoowul ñu koy jaamu ko dul moom ngi seede na yonent yàlla muhammad moo doon soppeem ba tànneefam ba yonent boobu nga xam ne la feesoon ca xolam ba muy bëgg yàlla bëgg boo xam ne nii amul lenn lu ko raxoon ba tax na sax kii di benn saxaabaam di jundub radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day avant muy faatu ci juróomi fan nee na saxaaba yi maa ngi denc di leen yëgal ni awma ci yéen ab xarit li ma am ci yéen mooy ay àndandoo ndax yàlla dama jàpp may xaritam comme nam jàppe woon ibrahima muy xaritam doonte ne bu doon danaa am xarit ci nit ñi day abubakar mooy doon sama xarit mbokk kooku moom la yàlla tànnoon feesal ci xolam mu kennal yàlla feesal ci xolam mooy mu matal mbëggeelam ci yàlla mbokk ñu ngi ñaan yàlla na yàlla wërsëgal yonent boobu tawal ay julli ci moom ak njabootam yàlla boole ko ay saxaaba saxaaba yooyu bëggante woon ca yàlla tax suñu boroom daal di leen di boole gannaaw bañ daan nekk di xeex ay xeex yu yàgg waaye bañ bëgg gañ bëgg yàlla tax ñu nekk ay doomi day ànd ñoom ak ña leen topp ci gannaawam baba nit ñu baax ña di jeex ay yéen mbokku jullit xam leen ne day jaamu yàlla mooy tax a dugg aljanna ku la mën a wax ne am na leneen loo mën a def ba dugg aljanna xanaa lu dul topp ndigali yàlla bàyyi ay tereem mbokk kooku dala nar a xañ aljanna jaamu yàlla nag xam leen ni daa am loo xam ne dañ ko cay wax am yoo xam ne dañ ko cay jëf am yoo xam ne dañ koy fas ci sunu biir xol jëfi xol yooyee bokkul ak la ñuy wax di ko jëf xol dong moo ko mën a jëf ca mooy lan mooy jébbalul yàlla jébbalu gu mat sëkk nangul yàlla wommatul yàlla daw lépp loo xam ne daa safaanoon ndigal yàlla mbokk loolu nag bokk na la nga xam ne mooy motóoram muy bëgg gu mat sëkk gu jaam bi di bëgg yàlla ngir yàllaa ko bind yàllaa ko moom yàllaa koy xéewalal yàllaay koy nar a rey ajjana jëm yaakaar ci yàlla la jóge moo ko may doom may ko alal loolee mooy fees xolom ci cofeel googe doonte ne mbokk loolee di mbëggeel nga xam ne mooy sunu jubluwaay xutba tey xutba tey bii doomu aadama yi day jooyoon nañ ci lool am na ñoo xam ne seen mbëggeel ga mbëggeel la gu jaar yoon gu yàlla gërëm am ñoo xam ne seen mbëggeel ga moo leen nar a alak yowmal qiyaama waaye mbokk jullit xamal ni la nga xamee ne mooy bëggeel ga gën a mat bëggeel ga gën a war bëggeel ga gën a jiitu ci ab jaam mooy mu bëgg boroomam subhaanahu wa taala bëggeel goo xam ne du ko yemele kenn ku dul moom mbokk amul benn xéewal bu nekk ci ñun lu dul moo ko def amul genn lor bu ñu mucc lu dul ci moom la moo ñu moo ñu ca musal loolu nag mbokk julit mbëggeelug yàlla googee du toog rek naan bëgg naa yàlla bëgg naa yàlla waaye mbëggeelug yàlla ma ngay déparé ci biir xol ba mooy sa xol bii nga dem ba yëg ci ne yàlla day moo la gënal leneen lu dul yàlla topp yàlla moo la gënal leneen lu dul yàlla mucc ci merum yàlla moo la gënal mucc ci leneen lu dul yàlla mbokk lii dong mooy wane dëggu ga am na xeet yu ñu jiitu woon di xeetu yahuudi ak nasaraan yi dañ daan bàkku di wax ne ñun day ñooy doomi yàlla ñun ñooy soppe yàlla suñu borom ne waaw lu tax yàlla di leen mbëgal ci seeni bakkaar du ngeen dara lu dul ay jaam ci ay jaamam mooy mbugal ku ko neex mooy yërëm ku ko neex yàlla moom ñi nekk ci asamaan ak suuf te ci moom la ñuy dellu loolu muy wañu ne kon ndekete yoote bëgg ga ñuy bëgg yàlla du lu ñuy wax waaye lu ñuy saxal la ci biir xol wommatul suñu borom jalla wa ala mbokk yàlla moomu wax nañu ci téeréem bu tedd bi nee na su ngeen demee ba seen baay yi ak seen doom yi ak seen frère yi ak seen soxna yi wala képp ku ngeen bokkal ci mbokk wala alal ju ngeen di faggu wala ay commerce bu ngeen bañ mu daanu wala ay kër yu taaru yu ngeen dëkkee su ngeen demee ba mu gënal leen bëgg yàlla bëgg yonent yàlla ak jihaat ci yoonu yàlla xaar leen ba yàlla ñëw ak mbiram yàlla du jëbal xeet boo xam ne dañoo doon ay faasiq dañoo génn topp ay yow mbokk julit suñu borom yàlla dañ koo war a kennal kennal ne moom dong mooy boroom kennal ku ne moom dong la ñuy bëgg keneen ku ñuy bëgg moom moo tax ñu bëgg ko mbokk julit suñu borom boobu jàll wa ala la nga xam ne dana la ko may ca bëggeel gu dëggu gën ko gën ko bëgg wallahi bari na lool ab xutba du ko mën a matal waaye xamal ne bokk na ca loolu rek la ci imaamu muslim solo yonent bi alayhi salaam béggal ñu ca nee na suñu borom yàlla day heure boo xamee ni nii bëgg na ab jaam ca amul kenn kuy bëgg yàlla bëgg gu wér lu dul yàlla da koo jëkk bëgg fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna yàlla subhaanahu wa taala bëgg gëm lay bëgg loolu moo tax sa xol di fees daa di bëgg-bëgg yàlla gu wér borom boobu ne wala yonenti yàlla ba nee na yàlla su bëggee ab jaam ci kaw suuf dana woo jibril ne ko eey jibril xamal ne sama jaam bee di samba caam wala sama jaam bee di faat sow xamal ne man day bëgg naa ko loolu bu amee jibril daa dina ah man it day sama borom bëgg naa ko daa di wàcc ci asamaan yi ne ee yéen malaakay borom bi ñooñu nga xam ne si des milliards si des milliards yàlla rek moo xam naka leen seen lim toll ee yéen malaakay borom bi seen borom yàlla nee na bëgg na diw ca kaw suuf ngal la waay bëgg leen ko malaaka yépp daa di ànd bëgg waaju baax jooje gannaaw ba cofeel ga yàlla wàcce ko ci kaw suuf mboolem jullit bu bokkaalewul ak yàlla dara bu ko gisee dana ko bëgg loolee mbokk da ngay gis ne moo gën ay milliards moo gën falu nekk président moo gën am nguur bu mu mën a doon ca mooy nga boole cofeel mbëggeelug yàlla ki malaakam ak mbëggeelu mboolem jaam yu baax yi yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko ay yéen mbokk julit gannaaw suñu borom jalla wa ala yéen ñépp xam ngeen ne moo ñu bind moo ñu moom moo ñuy xéewalal waaye xéewal gi gën a màgg gëm ñu defal mooy suñu diine suñu diine lislaam mooy xéewal gi gën a màgg gu yàlla wàcce ci jaam yi xéewal googu nag daa am ci kum ko jaarale kooku mu ko jaarale di suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kookee yeyoo nañu am keneen ku ñuy bëgg gannaaw yàlla ca du yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam déedéet laa wallahi abadan yonent boobu suñu mbëggeelu yàlla du mën a wér abadan lu dul lañu yàlla wax nee na su dee da ngeen a bëgg yàlla màndarga ba mooy topp leen yonent yàlla kon day yàlla dana leen bëgg jéggal leen seeni bakkaar te yàlla mooy jéggale mooy yërëmaate yonent yàlla boobu ñu war koo bëgg mbëggeel nga ñu bëgg yonent yàlla ndax mooy di ko baachal di ko toggal ay cere di ko fettaxul di ko woy guddeeg bëccëg laa wallahi mbokk sahabatul kiram xamuñ woon loolu mbëggeelug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla leeral na ko mooy in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni topp leen ma ci samay ndigal yonent boobu daal di ne sama xeet yépp àddina lañ jëm kullu ummati yadxuluuna aljannata illa man aba xeet bi yépp àddina lañ jëm xanaa lu dul ña bañ sahaaba yi na ko waaw kan mooy ki bañ yow mi yàlla yónni mu ne man ataani daxala aljannata wa man asaani faqad aba koo xam ne taxaw na ci samay ndigal ku mel noonu day dana dugg aljanna koo xam ne mooy na samay ndigal ku mel noonu day moo gis yoonu àjjana ba pare bañ caa dugg xadis boobu buxaari solo na ko ay yéen mbokk julit xam leen ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen du mën a gëm abadan lu dul maa koy gënal ndeyam baayam boppam bakkanam ak nit ñi mboolo seen laa yuminu abdun xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain xadis boobu muslim solo na ko lii mbokk dañuy gis ne bu dee xam nañ lii ab jullit daa war a bëgg yonenti yàlla muhammad mbëggeel boo xam ne nii day tiim mbëggeelu mboolemu mbindaafanu yàlla ngir loolu jural ko lan loolee jural ko ajjani borom bi anas ibnu malik radiallahu anhu nee na toog nañ ba mujj rek benn kaw kaw jóge fële daa di ne eey muhammad yonent bi alei salaam na ko naam mu ne ko waaw bisu penc kañ lay ñëw yonent bi na ko waaw loo waajal bisu penc mu ne ko ah ah xam naa daal waajal naa ko ne man day bëgg naa yàlla bëgg naa yonent yàlla yonent bi na ko anta ma aman ahbabta yonent bi ne ko koo bëgg ngay àndal yowmal qiyaama loolee sahaaba ya kontaan ca kontaan bu mag muy wane it ne la ñu waxoon day mooy bëgg du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndekete yoo te day tax nga ànd ak moom tabbi aljanna waaye mbëggeel ga wax nañ la ko sànq mooy gëm ko topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ay yéen ba ko julit xam leen ne day bëgg yàlla ak bëgg yonent yàlla loolee mooy tax ba koo yëg ne bëgg na yàlla ak bëgg na yonent yàlla nga bëgg ko ngir loolu looloo tax julit war a bëgg mbokk julitam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul day bëggal boppam day bëggal mbokk julitam lim bëggal boppam laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi ma yuhibbu li nafsi buxaari muslim solo nañu loolu mbokk julit bëgg gi ngay bëgg sa mbokk julit loolee day tax ba yowmal qiyaama yàlla kaweel say daraja comme naka yonent bi alayhi salatu wasalaam nettile sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne wajabat mahabbati lil mutahaabina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabazilina fiya rawahu al imaman malik wa ahmad yonent bi alayhi salaam nee na yàlla day nee na danaa bëgg sama jaam yoo xam ne dañoo bëggante ngir man dañoo dem di toog ay jataay di toog ngir bëgg giñ ma bëgg dañuy nekk di ziyaarante ngir man dañuy nekk di joxolante lépp lu baax ngir man mbokk ñu mel noonu imaamu ahmad solo ne ni yowmal qiyaama yàlla dana leen yëkkati ci daraja yoo xam ne xatta yonent yi sax dañ leen di ñëw lu tax mooy jëf yuñ jëfoon deewuñu fi sabilillah defuñu ay jëf yu bari waaye mbëggeel gu sell gañ bëggoon yàlla bëgg ko yonent yàlla bëgg ko jaam ya bëggoon yàlla loolu moo leen may loole lii moo tax ba nga la waay mbokk julit nañu xoolaat suñu bopp di jéem a bëggante fekk yàlla tax ba ñu bëggante ci parparloo ngiree mankat kii dama bokk ak moom ab sëriñ dama bokk ak moom association dama bokk ak moom lii nangam ak i nangam loolee mbokk teqalikoo googu seytaane la jóge jullit ñi dañuy ànd ci yàlla tax mbooloo mi ngeen gis ci jàkka ji gis ko beneen jàkka doomu aadama yépp ñoo rang amul lenn lu feeñ fi kenn mënul ñëw xool ne diw fii la bokk diw fii la bokk ñu sosoo ay mbagg lan moo ko waral kenn moo ñu yëkkati muy suñu borom jàll waala kenn la ñuy jullil di ko rukool ak a sujuutal kiñ ko jàngalit kenn dongo na muy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam tisbaar bii biñ koy julli démb ñeenti rakkaa la buñ koy julli suba ñeenti rakkaa la ñi ngi ko nar a julli tey ñaari rakkaa la kan moo ko jàngale yonent yàlla bi ñu bokk benn borom bokk benn yonent bokk benn xibla lii mooy tax ay jullit war a bëggante ay jullit war a jàppante loolu mbokk ñu góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax góorgóorlu it xam ne heure bu fitna amee ci jullit ñi noonu am ci jullit ñi rek bàkkaar moo ko waral la jiitu ci bàkkaar yooyu mooy shirk shirk bi laax mooy teqale jaami yàlla yi heure boo jëlee benn ci jaami yàlla yi daal di koy yëkkati jox ko loo xamee ne nii yàlla yeyowu ko loolee keneen ki nga xam ne gëmul la nga gëm fitna day daal di dugg seen diggante loolu moo tax islam tey bari ay kër yoo xam ne teqalikoo na lan moo ko waral mooy bañ jëlee ay nit yëkkati leen ci place yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla wax nañu ne yowmal qiyaama ñi gënoon a xaritoo buñ demee dañu nekk ay noon lu dul ñi nga xam ne dañoo ragaloon yàlla waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na amul be ñaari nit ñuy bëggante ci yàlla tax ñu xëy suba teqali ko lu dul bakkaar boo xam ne kenn ci ñoom da koo sos la jiitu ca bakkaar ya mooy bokkaale la tegu ca bakkaar yi mooy ay bidaa amul lenn lu mën a teqalee jullit yi dindi ca feel seen diggante lu dul ay bidaa mbooloom jullit dañuy créer benn bidaa boo xam ne am na koo xam ne jaral na ko dépenser un million pour teewa jataay boobee mu am beneen jullit soo ko joxoon un million naka demal toog foofu du fa bëgg a toog lan moo waral loolu mooy loolee ñu dugal ci biir lislaam loolu moo tax ba dañoo war a sàmm bu baax la nga xamee ni nii mooy ñuy boole sàmm ko nag la koy sàmm mooy ñu fexe bañ a rax la nga xam ne moo tax ñu ànd te mooy ñu bokk yàlla bokk yeneen ci yàlla bañ koo bokkaale ak dara waaye mbokk jullit wax naa leen ni doomu aadama yi biñ jógee seeni mbëggeel dafa wuute ña nga xam ne ñoom la seen mbëggeel jub wax nañ leen ko moo ñu seen mbëggeel wéer ci yàlla wéer ci yonent yàlla wéer ci jaami yàlla yi nga xam ne la tax ñu bëgg leen mooy ngir yàlla ak yonent yàlla waaye mbokk jullit gannaaw loolu doomu aadama yi da ngay gis ne am na ñeneen ñoo xamee ne nii lañ waroon a bëgge yàlla keneen ku dul yàlla lañ ko bëgge suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka xubbillah walazina amanu ashaddu xubban lillah am na ci nit ñi ñoo xam ne dañoo jël ay jaami yàlla nañ waroon a bëgg yàlla ñu bëgg ka jaam yooyu doonte ne jullit yi yàlla lañ gën a bëgg mbokk loolee da ngay gis na ca diine yu jëkk ya jëloon nañu seen i yonent ya jël seen i borom xam-xam ya mujj tuddatuñu yàlla tuddatuñu lu dul ñooñu ñoom la ñuy woo ñoom la ñuy bakkoo ñoom la ñuy ñaan ñoom la ñuy santante seen biir loolee mbokk da ngay gis ne ah ci nattu yi gën a rëy yu doomu aadama di tabbi ci kaw suuf te la bokk mbokk tey dañuy toog suñu jamono dégg ñoo xam ne dañu naan ñun day sëñ diw la ñu kennal seen wax doo dégg yàlla doo dégg yonent yàlla loolee mbokk da ngay gis ne doomu aadama bi nan nga mën a nekk julit heure boo xëyee ñaata yoon ngay wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ba pare am keneen koo xamee ne nii moom nga yëkkate teg ko ci kaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen koo xam ne nii da ngay bàkkoo ci ne mboole mi xiiwal yi nga yoro ci moom la jógee gannaaw yàlla jalla wa ala keneen koo xam ne nii da nga ne dogu nga ci ne wallahi maa ngi koy déglu ci rajo bi avant muy ñëw ci xutba bi pare naa li ma yor yépp ma joxe ko ngir moom ndax balaa déwéne dana ma delloo lu gën loolee nga jàpp ne mooy wërsëgal ci du yàlla nga jàpp ne mooy xettile ci du yàlla loolee mbokkoo tooñ nañu seen bopp toon nañu kookee nga xam ne dañ koy askanoo ngallaawaay mbokk xam ne loolu bu baax aka bari tey ci réew mi yàlla génne woon na ci suñuy mag ñu baax ñoo xam ne góorgóorlu nañu jaamu nañu yàlla taxawal nañu ay daara tasaare nañ diine wallahi bu ñu dekkiwaatoon gannaaw ba ñu faatoo cent ans après daañ denc ñi nga xam ne ñoo leen toppoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaama dana taxaw ci déegam ba di woo julit ñi di leen xàmmee ngir njàpp mi ñu doon jàpp malaaka yi xaaj la ëpp daal di leen bëmax ñu dem mu ne rabbi ummati ummati ay yàlla ñi sama xeet lañu suñu borom yàlla na ko ah yow muhammad laa tadri maaza ahdasu baadak xamoo lan la ñu sos sa gannaaw isa bnu maryam boo delloo ci injil da ngay gis ne dañu fay bind na yowmal qiyaama day da ngeen ñëw naan ma oh seigneur ca évangile yi ñu bind en français ô Seigneur yow day Isa sa tur lañ doon woo di faj def yi sa tur lañ doon woo di faj suñuy aajo sa tur lañ doon woo di ko xettali ko Isa ni leen sori leen ma sori leen ma yéen a doon tëj buntu aljanna ci kanamu jaamu yàlla yi lu waral loolu mooy jaami au lieu au lieu que ngeen jubal leen ñu wéetal yàlla bëgg yàlla ngeen yemale leen ci Isa Isa Isa denc ñoom ba bi ko borom bi woowee ay isa ndax yaa waxoon nit ñi jël leen ma maag sama yaay def leen mu yàlla isa denc kanamu borom bi lay bu ne mu lay ko ne sama yoon nekku ci ñoom in tuazibuhum fa innahum ibaduka wa in taxfir lahum fa innaka antal azizul hakim loolee kon mbokk li ngeen di dégg ci rajo yeeg télévision yi bu mu leen nax e yow jaamu yàlla bi may dégg xamal ne day sunu maam yi bu ñu dekki waatoon wallahi du ñu leen wax lu dul gëm leen yàlla wéetal yàlla mboole mi xéewal bu jóge bu ñëw ci yéen ci kenn rek ci yàlla rek lay jóge bari na ci kenn ci maam moomee nga xam ne tey jii lu la ñu ngi koy wax gannaawam bind na ci ay téeréem ne man kaana yazunn anna gayra allahi yanfahu aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wa dur képp koo xam ne jàpp nga ne ne am na keneen ku dul yàlla ku la mën a jëriñ wala mu mën laa lor moo nar a boole coono yi àdduna ak coono yi àllaaxira lii mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax delloowaat mbir yi ca fa mu war a tege mbokk yàlla mooy yàlla mi ñu war a jaamu waruñu ko bokkaaleeg dara yeneen ki yàlla mooy jaamu yàlla bi nga xam ne dañ ko war a kennal kennal yonent yàlla bi ci lan ci du ñu jaamoo yàlla lu dul yonent yàlla bi jàngale gannaaw yonent yàlla boobee nag mboole mi jaami yàlla dañ leen war a bëgg nga la waay jullit bëggal ma ka nga xam ne ni mooy aboubacar ak omar bëggal la nga xam ne mooy taabiin bëggal la nga xam ne mooy imaamu malik bëggal mbooleem ñi nga xam ne dañoo nekkoon tey jii ci suñu réew ak beneen réew di jàngale diine di woo nit ñi ci diine ñoom ñépp nga war a boole bëgg waaye bëggeel baa ngi yem ci nga xam ne say doomi ndey lañu ci diine nga leen di ñaanal yàlla di ñaan yàlla jéggal leen di ñaan yàlla yëkkati seen daraja bul dem mukk ba jàpp ne ñoom yegg nañ foo xam ne kenn wuru leen a ñaanal bal dañ leen war a nekk di ñaan bokk loolu ci seytaane la jógee ñooñu dañoo war di leen ñaanal yàlla bu dee yonenti yàlla bi ñu ngi koy ñaanal aboubacar ñu ngi koy ñaanal naka la ñuy def ba duñ ñaanal suñu maam yi fi jóge woon loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla delloowaat ñu fas lam bëggoon ñu fas ko yal nañu yàlla boole ci jaamam yi koy jaamu dañ ko bokkaaleeg dara yal nañu yàlla boole ci jaamam rëy yonenti yàlla ba yal nañu yàlla boole ci jaamam yi woon gannaaw shirk ak bida yal nañu yàlla laabalal suñu réew delloo ko muy réewu tawxiid delloo ko muy réewu sunna daqal ñu lépp bépp woote boo xam ne day teqale jullit ñi bépp woote bu ñuy delloo ci shirk ak bida allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar allahuma habib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan waj'alna birahmatika min arrashidin اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين